voilà ñu jéglu ko bu baax a baax mbokk moom ñaan ko na jéemaat 88 la 628 69 69 00 221 33 841 09 31 comme ni ñu koy àndee saa su ne mbokk allo. allo allo oui. maa ngi lay dégg Mbaye. waaw. naa maa ngi sant yàlla bu baax. am na yàlla doole tam. tur bi naka la ak fay wootee. man la waaw maa fi ñëw ànd sama ñaari mag gi dëkk Touba rek. gëj laa dégg. wax nga dëgg na Fatou. namm naa la. gay maa la raw bu baax a baax. déwén na ci baal ñaar. nañ leen baal leen ñu. nañ yàlla boole jéggal. amin amin amin yàlla defal jàmm. amin yéen amee leen kenn àq. yàlla defal ci sutura. amin amin amin. yàlla defal suñu jaamu yàlla ci bakk Seydina Muhammad. allahumma amin gay toujours dama lay laaj ndàndam boobu bu natt bi di natt si dama lay laaj di la tooñ toujours bu jot. dëgg la dëgg la. namm naa la ñu lay bëgg di la sagoo. dëgg la maa maa kontaan naa ci yéen bu baax a baax yéen neex a dëkkal. jërëjëf soxna Fatou Gueye neex a dëkkal wax na dëgg nekk fële ci APEX 2 ñu bokk benn koñ waa APEX 2 maa ngi leen di nuyu di kontaan ci ñoom ku ci mel ni noonu mu ko waxee ajaratu ndànd mbaw maire Ndioufa ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom ami baawo ma bàyyi xel bu baax baax bàyyi xel itam ki nga xamante ni mooy madame Lo euh, ñoom Penda Mbaw ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar dañu nekk ay dëkkandoo yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu jàpp seen ñàmbur lañu ñu baax lañu waaye tam nekk ñoo xamante ni ñu mën a dox kóllëre lañu mën a dox itam mbokk ndax nag nekk ndoo wala nga dëkkandoo ak koo xamante ni wax dëgg yàlla jógam yombul te saa su ne yaa ngi seet yaa ngi nemmeeku yaa ngi taxaw yaa ngi euh, jéem a xool ci lu mu nekk kon defe naa ni man maa leen ameel njukkal man mi nga xamante ni man maa ñëw ci seen biir te xatalu leen ma benn yoon mbokk soxna ñu ngi sant yàlla bu wér a wér. baal bal nañ leen bal leen ñu. allo. ndeysaan ñu baalu leen tey it leen àq bunt baa ngi noonu ku mu neex dugal baalonte àq. Euh, baal naa ñëpp àq na ma ñëpp baal àq ndax nag atu yàlla nga toog di wax xëy na léeg nga wax loo xamante ni du neex nit ki wala dina doon loo xamante ni lu safaanoo lay doon léeg sax nga ne dina takk sama ndigg dem fekk ji ko ndax man lay wax waaye nag ànd ak lu mën a xew rek nañu jàpp ne mbiru émission moo tëddee noonu itam doomu aadama moo bindoowoo juum tey it nag comme duñu yàlla duñu yonent te duñu xat bu samaan ay euh, maanaam tout tànk lañu rek yoo xamante ni dañuy jéem a waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moo nekk ci seen biir kër bu ma nee tout tànk nag wax dëgg yàlla at yi moom tàmbale naa bari ñu ngi commencé jëm mag waaye nag am na ñoo xamante ni tey ñoo ñu gën a féete mag te ñoo ñu gënoon war a mën a féetewoo lii bu ñu yàlla nattoo tey ñu gën leen a tuuti ay at te teew fii di waxtaan ak ñoom te lu ñu waxtaan ñu d'accord ca bu ñu waxee nag at moo xamante ni xëy na peut-être romb nañ ko jaadu nañu baalu ñëpp ak ci yenn rëcc-rëcc yi nga xamante ni ñu ngi koy rëcc waaye itam baalu ñëpp ak itam ci li nga xamante ni léeg ñu yëkkati ko mu doon loo xamante ni dafay euh, yëngal seen xol. buntu baa ngi noonu rek jaar leen ci ni ma leen ko waxee déwénati lay doon béggalante lay doon ci. Euh, li nga xamante ni mooy ñaari bés yi nga xamante ni moo toftalu ci julli gi su ko defee rek semaine prochaine incha allah ñu dellu si waat àndaat ak yéen soobu ci li nga xamante ni mooy waxtaan wi jëm ci wàllu biir kër yi comme ni ñu tam di ko defee waaye nag ñaan ñëpp ñu delloo siwaat xel yi rek baalante àq bi dinaa ci ñëw ndax léeg-léeg nit baalu moromam àq ba pare te du dëgg ci moom mbokk allo. allo Mbaye na nga def. maa ngi sant yàlla. ça va Nafi Mané. Nafi Mané. waaw. soxna Nafi. ci Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall waaw soxna Nafi ziar naa la de. <laughs> mag lay doyoo bi nanga def. namm naa la ana maa fii. <laughs> maa raw. ça bien. ça bien. ana sama doom bu jigéen bi. allo Nafi. oh là là ma koy nuyu bu baax a baax moom soxna Nafi Mané. Euh, ma nga jógee fi nga xamante ni mooy France waaye nag jamono bi mu nekk vacances ci kër Mbaye Fall may nuyu waa kër Mbaye Fall yëpp xarit yeeg soppee yëpp wax naa leen su ma toogee bëgg lim rek dinaa juum waaye nag nañu yëg ne rek ñoom ñëpp sama xol sedd na ci ñoom moo xam ñi nekk ci réew meeg ñi nekk bitim réew ñoom ñëpp maa ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di kontaan ci ñoom waaye nag euh, ni ñuy baalonte ak léeg nga dem ci nit ne ko déwénati baal ma ak mu ne nañu yàlla boole jéggal fekk waxu la baal naa la àq de ndax am na lu mu la téyel loo xamante ni nee na duma ko baal benn yoon wala su fekkente ni sax moom moo la jëkk ne la baal ma àq nga ne ko baal naa la baal ma dana danaan nañu yàlla booree jéggal ndax am na xëy na peut-être loo xamante ni téye na ko ci biir xolam mu doon loo xamante ni mënu la koo jéggal jamono bii nag dafa toon nekk jamono boo xamante ni xëy na peut-être nit ki bu delloo see xelam tuuti rek euh, dina war a mën a xam ne jamonoy baalonte ak na doon loo xamante ni lu sincère lay doon ci ñun mën nañoo delluwaat ca juum juum ya mën nañoo delluwaat ca rëcc rëcc ya su ko defee bakkaar bi daal di ñëwaat bu ñu dellu siwaatee beneen événement rek daal di waat ak su ko defee yàlla mën nañoo jéggal bakkaar boobu waaye nag baalonteeg nit ki ak àq ba pare te doonul loo xamante ni lu dëgg ci yow la dafay doon loo xamante ni musiba lay doon te eh, yàlla may na la occasion ngeen fekkente ngeen fekke at mi woor ko ba mu jeex ak jàmm ñaata nit ñoo génn àddina te fekk wareeguñu amuñu jotu baalonte ak ñaata nit ñoo ñoo génn àddina amuñu woon occasion balonte ak fekk na korite fekku leen fi kon yow bu fekkente ni yàlla may na la nga fekke période boobu fekk jamono boobu nga war a mën a taxaw sa moroomu doom aadama wala sa moroomu jullit ñëw taxaw ne la bal na ak li ci war rek mooy bal naa la te mu doon loo xamante ni lu dëggu ci yow la léeg-léeg nag dina metti léeg-léeg nit def la loo xamante ni xëy na peut-être nga taxaw ne ko bal naa la ak dafay doon loo xamante ni lu jafe ci yow la waaye nag àdduna bi damay wax ne dafa jeex ba pare lu fi jar genn ñaawoo gi ak lu fi jar defante lu ñaaw lu fi jar téyanteel sa morom dara gisuma ko wax naa leen ne léeg nit dina la tooñ tooñ goo xamante ni doo ko mën a baal léeg-léeg nga jàkkaarloo nit rek mu wëlbatiku indil la tuuma diw mi dañu koy tooñ maamam moo fi defoon nangam mu doon xas woo xamante ni dalay topp ba giir gi dundu yow ci sa wàllu bopp nga war a mën a taxaw dund ne kii bàyyi naa ko yàlla te lii ma def duma ko baal ba illaa mi diin aha kay da nga ci am plein droit ndax dafa nekk gàkk boo xamante ni day topp ba ki say sët ak say sataat kooku taxaw ne nit ki baal naa la ak dafay doon loo xamante ni lu jafale doon benn la nag ci exemple yi nga xamante ne exemple tooñeel la waaye nag euh, li ngay def mooy rek nit ki bu amee ba ñëw déplacé wu ñëw ne la damay jéggalu se bëgg nga baal ma ak yow amal mat gu toll ni ne ko baal naa la ak te muy dëgg ci yow su ko defee nag la ca des nag digganteem ak boromam la sa borom ci boppam moom moo koy lijjanti ak moom kon nañu delloosiwaat xel yi bu baax a baax te xam ni occasion yi dafa nekk occasion yoo xamante ni yàlla mayu ko ñëpp nekk jamono boo xamante ni tey am na ñu bari ñoo xamante ni wuute nañu ko te du seen sababu bopp kon bu ñu yàlla nattoo ñun ñu fekke ko wala bu ñu yàlla béggalee loo xamante ni ñu fekke ko la nattoo ñeneen ñu dem ñun ñi nga xamante ni ñoo ko fekke nañ ko sante yàlla bu baax a baax te lim ñu digal ci jàmmam yi mu doon loo xamante ni lu ñuy def la digal bi nag mooy weesuwul nit ku tongoon teg moroomam ñetti fan am na lu ñu ca wax waaraatekat yi wax nañ ba sonn te it nag nit du teel moroomu jullitam dara bu ko defee ak bu la waxee yëpp jëlal lépp bàyyi sa diggante ak sa borom yow ki sa wàllu bopp nga setal sa xol féexal sa xol bàyyi kook yàlla mu lijjanteeg moom loola donte sax wax nañu ne yàlla boo ko tooñee jéggalu ko mu jéggal la te it bu ñu jéggalante sunu biir yàlla mën ñoo jéggal ay bàkkaar kon yàlla na yàlla jéggal ñu jéggal leen ñeen ñi nga xamante ni yéen a toog jàkkaarlu ñun di ñu setaan waaye di wax ne daal amuñu seen fay jaajëfal nañu leen bu baax a baax am na yu baree bari yoo xamante ni jaar na fi ci biir at mi ñu waxtaane ko lépp nag ngeen nangu ko ak seen téeméeri loxo lépp nag doon loo xamante ni dangeen di dugg ci yar ak teggin tekk ak tey discipline boo xamante ni foo ko natt weesu na ko kon damay wax ne rek man mii ma amul seen pay jaajëfal itam ñi nga xamante ni léeg dañuy dugg ci biir émission bi dinañu ñëw indi lu am solo indi waxtaan indi seede yoo xamante ni wala ay kaddu yoo xamante ni yu rafet la yoo xamante ni bu ci nit ki sukkandikoo rek mën naa am ndam ëllëg waaye itam am na ci ñoo xamante ni dañ ci boole domp seen wërsëg nit indi kaam ñu jàppale ko ba yàlla def ki sutura su ko defee lu bari wàññeeku ñoo ñooñu itam amuñu seen pay te nag li ma koy faral di waxee rek en général euh, des fois da ngay gis koo xamante ni day am àddina ak li ci biiram am ay milliards mu nekk ci banque yi ci biir réew mi ak yëpp ci bitim réew di nelaw ñu indi cas boo xamante ni cas bu doy waar la boo xamante ni ñaari million moo koy lijjanti